Ada na lool gis nañ suñu bopp daal waaw bu baax ñu ngi bu baax waaw maa sant yàlla bu baax maa sant baax tey yéen ngi waajal euh, dem parc waaw ñoo koy waajal waaw damaa ñëwoon di wàllu dugub pour préparer tam xarit bi ndax tam xarit la ci def lu lu rek nga ko ndax tam xarit la fu ñu ko mënti def ci àdduna kër goo dugg cere nga fay fekk xanaa léegi la àdduna yàqu ñi di def ay vermicelle ñi di def ay tufe mais daal cere mooy natiiram cere mooy baaxam waaw waaye dañuy ñaan yàlla dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin nan ngeen toggee cere bi ah cere ji daal kenn ku ne ak sa façon kenn ku ne ak sa façon man togguma xale yi ñooy toog damay mooñ su ma yekkee ni dama koy mooñ suma moñé pada dari tay, semua tay suma tayé daal di racc ba suba bu suba bu ma xëyé nak daal di def samay bagage kenn ku nek ak say bagage rek kenn ku nek ak noy gérer sa bop kau da da ci mo do waaw xalis waaja mo waaw xalis mo ñu ñew na su santé la baax ñu ñaa ñu ñoo xaar wa ñu mom wa lu ci bu ko day ko mom sa mu ngi jaay non mu normal kay ah lan la ngeen fi woon ah daal lañ fi woon ay ndugum ay mbokk ceeb lañ fi indi tamit xam nga bu liggéey daal bu fi ñëw dañ ko lii loolu lañ koy liggéey rek bu ko bëggee lan la ko defaree. waaw mu ngi mu ngi mu ngi waaw mu ngi dox daal ñu ngi sant lu baax ñu ngi sant lu baax ci taxawaay bi moom parce que dañ ko yàgg a def saa saa saa duñ fi gis duñ fi duñ fi gis métti. waaw loolu moo rëy macha ñu ngi baax. ñu waajal rek tere ba mu neex bomb ba mu saf defar ba mu baax yàlla nañ ko teewee déwén déwén yàlla nañ ko teewee déwén déwén bu déwén naree ñaaw yàlla na mel ni ren. ah mën na li xale yu jigéen ñi mënatuñu cere moo tax su tam xarit ñëwee yi ci boppam ñooy jël cere ji di jàppale leen defar leen cere ji ba mu neex. bàyyi leen ak soos bi ñu togg ñun ñu defar cere yi ndax ñun cere rek la ñu xam. mais bu ñu walloo ba pare bu ñu ba pare xanaa mooñ bu ñu mooñee tey laalo delloo cere ba mu neex rek. waaw. maaleykum salaam Noor. maa ngi fi rek. waaw damaa wollu si. tam xarit ji. may waaja tam xarit ji. xanaa sama paanu dugub ji laa fa wol si waaw. nan ngeen di waajale tamxarit ji. waajale tamxarit ji ah xanaa xool suñuy cere rek ba mu baax defar ba mu baax jënd ni ndawal togg suñuy reer bégal suñuy njaboot daal ak mu jullit mu ci xaj rek ñu boole la ci waaw. xale yi léegi mel ni mënatuñoo mënatuñ ko mag ñee fi ne mag ñee fi ne man man man même bu ji nii man damay jaay sama cere man damay wol di mooñal sama bopp di jaay sama cere. tam xarit ji nii tamit maay mooñal sama bopp maay defaral sama bopp sama cere waaye xale yi mënatuñu ko. nooy defaree damay wolee ba pare boo ko wolee ba pare damay toog teg sama ndox di kaas di mooñ di kaas di mooñ di kaas di mooñ ba doom bi génn ma fadd ba mu dëgër ma daale lay teg ci naaj bi mu forox tuuti ma daale tey bu ma tayee nag bu ngoonee ma toog jaay samam jaay waaw noonu la laay def. kon daal macha allah. macha allah tubaarfakala macha allah lépp baax na lépp doy na it macha allah. dañuy ñaan yàlla rek mu gën a yokk yokk ba ca kanam a kanam rek. waaw amiin yaa rabbi